maxtaaruhu liya bila masiri wala lainu li siwaaya mudbira bima ala dahri yaduumu dabara maha tawajjuha almakaarihi liya باق حبا بذكره وهو ليا عنه رديت وعني رادي بلا مكاري ولا مرادي رد لي غيري جهدي شيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لي خيري جهدي لحين يسوقه لخيرنا المعين هدي هدي من الإله والنبي كل هدي سفد وسفة بي توفيق وادي العقاد والإلحام قد بيان maal anbiyaamu badat li alyawma bi rabbin xuyabu aazani mimman xalaw wa xuyibo laa yatawajjahu li naxwi mutribu anni maxde makaarihi wa taabu saadati bi xayri maxwin kutibatu wa kawni al abdal xadima qasabat sakara li muyassiru al asiri maxtaaru liya bila masiri unbitu ana raso lallahi basarani wal bisru kulli man lahu wizara kawna janabi xesna hadin zara maanaam Sëñ Tuubaa daa wax ne maanaam yàlla defal na ko ci diggante falak folli loo xam ne kawe na buur yi woo yëlli sëy ne ko yëlli ku kuy sa ñëwal ma jox la barab sàngam mu ne ko su ma la ko joxee kuy doon sa kilifa mu ne ko diw mu ne kooku kuy doon kilifa mu ne ko diw ba fa kilifteef ga yem mu ne ko la tàmbalee ci yow ba ca kooka mën naa leen a fal ci benn kaasu kafe ci jenn saa foli leen daal di waxaat ne képp ku amuk pal bu bëggee pal ga mucc maanaam man mii maay xis na maanaam maanaam xis kulli man lahu wizaara kaw ne janaa bi xis na hëddin zara maanaam ku amuk pal nangoo yano pal ga indi ko ba ci ba ci sëñ Tuubaa maanaam boo ko wiiree pal ga pal ga ñoog na falu na moo tax doxale gi la sëñ Tuubaa mboolem kuy falu maanaam ku boot bukki xaj baw la waaye xisnal xadim jooju mi ngi ci yow lu ñu la mën a dara maanaam ndabul sëñ Tuubaa nga loo xam ne dafa am ko ko wax ne ida walaga alkilaabu fi ina in rafaatu yadi waaye yow sañoo ko am na ku ne man su ma demee sukkee ca ndab li bu ci xaj-xabee rek ma bàyyi waaye sëñ Tuubaa moom ndab li moom àdduna nekkal ci ndab li ku tilim ak ku set ñëppay sukk waaye sëñ Tuubaa la teg fi nga toog fi nga toog sëñ Tuubaa lay liggéeyloo maanaam ku baax ak ku bën ñëppay ñëw waaye ndam ngay am tey moom ngay am ëllëg salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi nuyu ak a ziyaar cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdul Xaadir Mbacke ibnu cheikhul Xadim ñi ngi lay nuyu bu baax nuyoo bu lislaam di la ziyaara ziyaara bu ñu tëbbee suñu xol di yëkkati ay kàddu ci turu sëriñ Abo Mbacke moom sëriñ cheikh Ahmadou Mbacke Chouaïbou ak ci turu waa diiwaan xam naa day njëkkante waxtu wi rek. tënk kàddu yi waaye sëriñ Abo Mbakke dafa waxoon ni bu ñu agsee ci jataay bi ñu tudd mag ñi nga xam ni seeni njaboot doon nañ teew ci diiwaan bi ci fukki fan ak juróom yi mag ñi may waaj tudd seeni tur ku ci ne ak njabootam teew na fi ci fukki fan ak juróom yi benn fanu safar bisub tey ji muy seti mag ñi àndoon ak Seexul Xadiim Xaadimu Rasuul ràññee nañ ci jataay bi waa kër Cheikh Abdoulahi Diané waa kër Cheikh Mansour jaw waa kër Cheikh Mababou Guèye waa kër Cheikh Abdoul Karim waa kër Cheikh Ali Aram waa kër Cheikh Mor Kayre waa kër Cheikh Albaba Dia waa kër Cheikh Mor Dia Layaabe waa kër Serigne Beyti Ndongo Dior Amar Jéemul waa kër Serigne Cumbuleen Mor Yaasin Silla waa kër Maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine waa kër Cheikh Babacar Fall Nduuf waa kër Cheikh Moussa Sey Cey Cey waa kër Cheikh Mor Kan Njoppam waa kër Cheikh Ibrahima Sarr Jazak waa kër Cheikh Mouhamadou Absa Fall Ngiik Fall waa kër Cheikh Mor Diouf Jatti waa kër Cheikh Ibrahima Ndiaye Guy Ndiaye waa kër Cheikh Saliou Diouf Aqaax waa kër Cheikh Madiba Silla waa kër Serigne Mor Fa Demba Kan waa kër Serigne Mor Diouf Jatti mu mag waa kër Cheikh Omar Diop Ndiobène Mbacke Bawal waa kër Serigne Alhaaji Ñaan Calaaga waa kër sëriñ Abdoulahi Gaye Njaareem waa kër sëriñ Mor Kan Ndioppam waa kër Serigne Mor Faasa Touré waa kër Serigne Mokhtar Bintaloo waa kër Serigne Mbay Seck Misira waa kër Cheikh Youssoufa Mbaw Daaru Mbaw waa kër Cheikh Omar Gaye Anta Nguna waa kër Cheikh Daouda Diop Jatmi waa kër Serigne Kale Sey waa kër Serigne Mor Loo waa kër Serigne Saliou Kebe kër Kàbbu waa kër Cheikh Ahmadou Anta Bàcc ñoom rek Gosaas waa kër Cheikh Massamba Xëri Wadd waa kër Cheikh Baara Sarr Xombal waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi waa kër Cheikh ma Lamine Ndiaye Xewar waa kër Cheikh Adama Guèye waa kër Cheikh Paati Amar waa kër Cheikh Babacar Ndiaye Cargaan waa kër Cheikh Ma Ñang waa kër Cheikh Mor Kumba waa kër Cheikh Mokhtar Xëri Laam waa kër Serigne Daam Baleloo waa kër sëriñ Jambu siise waa kër Serigne Mouhamadou Lo Mbéri waa kër Cheikh Malick Bassine si ba ci sunu mbokk mi di Serigne bu siise di waa kër Cheikh Mor Cissé Serigne Mor Mbaye Cissé kon ci tënk rek ñii ñoo fi teew di diiwaan ci njiital Serigne Abo Mbacké moom Serigne Cheikh Amadou Mbacké Souhaïbou di juróom fukki kër yoo xam ne ku ci ne ak njaboot bàyyikoo na fa teew ci liggéey bii sëriñ bi. ngir njëkkante waxtu yi ñu kàddu yi dañ koy tënk ci ñaari tomb rek muy kàddu yi seere ci liggéey bi ak kàddu yi cant ak leeral tuuti liggéey bi ba nga ñu ci joxee ndigal ci jamono seex Seydil Mokhtar ba léegi muy diwaan benn fan safar fukki fan ak juróom ci weeru safar niñ ko baaxoo defee bis bu set bu ñu fi xëyee danañ fi jàng juróomi kaamil alxuraan ña koy jàng ñëpp toll ci limum ñaar nit ak juróom-ñett waaye ñoom ñooñu ku ci ne Serigne Touba dafa gërëm kenn du leen rax ñu jàpp ñu waajal ko. ci barab di fee ci kaas ba ci biir kër gi boole koo yitte ak yar ak i teggiin ak sell saalu soxna asu gaawan foofu lañ koy jànge kenn du leen rax ñaar fukki ak juróom ñetti waaye bu ñu noppee teg ci itam ay xasida xasida itam yaa joxe woon ndigal muy tay sirul xasir ak xesul abrar ak wakaana xaqan wala xadd karam naa lu ci ne itam jàng nañ ko ñeent fukk ak juróom ndax bis bu set des na ko jàng ñetti yoon mu toll ci juróom ñaar fukki kaamil ak juróom di tollook li muy dunduk sëriñ bi ci zahir ak téeméeri xasida ak juróom-ñett fukk ci xasida yooyu nga ñu toll nga ñu tànnaloon loolu moo jiitu ci liggéey bi lépp ñu àddiyeel ko cheikhul xadim xaadimu rasul ak njabootam gu tedd ga waaye itam di toppatoo gan ñi ci ay délégation luñ fi recensé ci ay délégation toll na ci ñeent fukk ak juróomi délégation ci biir réew mi ak bitim réew ci kilifa kilifay diine yi ak autorités yi ñoom ñëpp ñu dalal leen ci turu sëriñ Abo yaatal leen ci kër gi ba la waroon ci ñoom lépp lu ci ne mat na sëkk lépp ci seen ndigal waaye tam ñu boole kook nag def ay commission fukki commission ak ñaar commission bu ci ne kilifaa ko jiite ak mbooloo ma topp ci gannaawam waaye li ci gën a yéeme kenn ku ci ne boo xëysee da ngay jabali rek ci sa commission sab liggéey Mbakke ñi ngi lay jéggul ndax bu ñu xëyee li tax duñu agsi fii nuyu la wala ñu nuyu sëñ Abo mii li ci ëpp jëwriñ ku ci ne rek liggéey ba fonk ga nga ko foog ak yittewoo ga nga ko yittewoo moo tax daanaka sax du du agsi ngir joxe lox tey tey xarkanam yu bari yaa ngi leen doog a bis bu set xëy si nañ ci kër gi waaye liggéey bi ñu nekk moo tax daanaka ñu xam ni ku ne ci ndigalal sëriñ bi rek jërul sax ngay jox loxo sëriñ bi la ca topp itam war ma ji jox kër gi ndax danga ñu koo digaloon te na mu doon lu war mooy ku fi dugg bu jubee bunt kër gi day summi ay dàllam diiwaan bi amul kenn ku sol dàll ci biir kër gi diiru fukki fan ak juróomi baa mu sol mbaxana baa mu toog ci kaw fauteuil yi wala lal yi wala wala ab sées ci suuf la ñuy toog te loola ñii ñëw ci kër gi seere nañ ci waaye boole ko gan gu fi ñëw nag la war ca moom def nañ ko ci toppatoo ko ci xeeti bernde yi dagan yépp ak la ca war sëriñ Abo Mbacke mii nga doxale suñu diggante itam ñu ngi lay seereel ne jàmbaar la xam ne li ko war lépp def na ko orientation yi mu war a jox muy xalaat yi yépp da koy def dañ koy jox saa su ne moom mii sax ñu ci bari ci mbooloo bu ñu xëyee duñ dem nuyu ji ndax kenn ku ci ne rek yaa ngi bañ faay fa nga nekk ba ñu bari sax du leen gis ngir kenn ku ñëw fan la dénk bëggoo dara soxe fa ba tax na boo yëgee ni yaa ngi ci liggéey bi rek du aajo sax ngay dem nuyu ji sëñ Abo waaye ñu ngi lay seere ne sëriñ Abo Mbacke li liñ ko dénk day matt na ko suñu diggante ak moom day la ca war lépp def na ko ndax moo ñuy njëkk xëy moo ñu mujj a wàcc di jàmbaar di borom pëstéef di borom pas-pas boole koog nag bu ñu liggéeyee ba ngoon ba jan ba takkusaan ku diwaan bépp dañuy dajale dañuy daje fee ca Saalum soxna Asu Gaawaan amal fa ay waxtaan ñi doon yanu ay dab di bale kër gi di nettoyer di setal ak dalal gan yi takk seen digg bu ngoonee ñooy def waxtaan yi fii ne bari na ci eh, waxtaan yoo xam ne amal nañ ko ren jii ñi ko doon waxtaanee mooy ña nekkoon ca waañ wa ñooy dem waaj ñëw toog waxtaane ay maw dox ci sëriñ bi diggante mag mag ñi waxtaane nañ fi ñetti mag ren jii loolu lépp ñi koy def ñooy nekk ca waañ wa ñooy nekk ci sécurité ba ñooy nekk ci hygiène ba ñooy nekk feneen ak feneen loolu lépp day wane ne ak taalibe rek moo am solo day kon ay boroomi xam-xam da cee am ba noppi waaye lépp dañ koo jaay jënd ko ak taalibe sëriñ Abo mi da koy wax lu bari sëñ Modou Amar mii nga xam ne moom la toppale suñu gannaaw nee bu ñëwee fekk si yi teewal la fa yow Cheikh Mamadou Bachir day gis ni ñi doon yenu raxas yi ak dab yi ak toppatoo kër gi ñooy teg ñooy ñëw toog def ay maw dox yoo xam ne du ñu yor sax këyit lépp seenu dënn lay nekk di ay borom yi xam-xam kon nag loolu lépp sa mbaaxu maam gu tedd ga Cheikhul Khadim Khadim Rasoul mbooloo mi kon ñi ngi ñi ngi lay seeral ni ñi ngi feddaliwaat seen jaayante ak yow ci liggéey bi incha allahu taala népp noo ko bëggee rek fas ko yéene duñ dellu gannaaw na suñ maam ya gàddaayoon fekk sëñ tubaa ci barab bu ne mboolem barabu suñ dooma sax fekk nañ fa jaayante ak moom rek ñu ngi foofa duñ dellu gannaaw duñ yox yoxi sëñ Abo Mbàkke mi ne ñu ngi lay seeral ni ko digal rek def na ko ba def sax loo xam ne ñun ñi topp ci gannaaw mënuñu ko jàmbaar joo xam ne sant nañ ko gërëm nañ ko mook sëriñ Modou Amar mii topp ci gannaawam kon du ñu guddal ndax waxtu wi ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla guddal saw fan wéral say cër àggale la sa yéene ndax nag yow Cheikh Mamadou Bassir ku ñu dooleel nga ci liggéey bi jàppale nga ñu ci zahir ak ci baatin waaye na nga xam ne mboolem sëti seexi sëriñ Tuubaa yëpp kenn ku ci ne mi ngi la ci xolam di ñaan suñu borom musal la aar la àggalal ba dara du la dog ci barkab Seexul Xadim sa maam ju tedd ja wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñi lay nuyu bu baax di la siyaar mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoom lañu àndal teew teew fi sa kanam sëriñ Mbacke Fall leeral leeral leeral mbooloo mi ak ni ak fa nga jógee ak ni deme xam na. kàddu yi moom du gudd ndax ak kàddu yu cant rek la niñ la ko wax niñ la ko daan waxee rek eh, cant yi ngay yëkkati di ko jëme di ko jëme ci nun nun ñii la war nun ñoo war a sant sëñ Tuubaa bu wér a wér ndax liggéey bi nga xam ne eh, ci tawfeexu sëriñ bi eh, teg ngoog ci suñu loxo ñu ànd ànd kook ñi ma ko àndal ni leen di koy faral di waxee rek liggéey bi Sëriñ Tuubaa moom kenn kenn kenn doonu ci dara ñu sikk ci ne bu ñëpp toogoon téye seen loxo yi du teel sëriñ bi lu mu bëgg day am loolu moom lu mu lu lu mu fàggu la diggante digganteem borom ba borom nangul ko ko noonu mu ko waxoon ci jumaa ja rek jàpp nañu loolu moo nekk ci léppam waaw lu mu santaane bi ñu ko defutit faaw am ñu ñoo def ko ndax lu sunu lu suñu boom nangu napp la kon tawfeex tawfeex ji kay mooy nga bokk ci ña nga xam ne ñaangu nangu dana jaare ci ñoom waaye mbiram moom dooluñu dooluñu ci dara waaw kon nag kuñ ci kuñ ci tabbal wóoroo seen toog cant yaa sant kon nag ñi sant sëñ Tuubaa bu baax a baax di la ko seeral yow mi nga xam ne yaa fi sunu jëwriñ sëñ Tuubaa di ñaan sunu boom guddal sa fan te wéral la ndax liggéey bi kat lépp sax say xalaat say xalaat la sa bëgg la say ndigal la yaa nu woon jox ndigal joxe tur yi nga xam ne moo moo moo moo lëkkale mbooloo muy diwaan wax na nga ko bëggee te booba mooy gis nga ne kër kër gi mooy kër sëñ Juba euh, kër sëñ Juba nag wuta wuta bokk génn kër te bu ñëwee kër sëñ Juba am na lu war a làmboo nga wax ne da nga bëgg bu benn fan safar teroo ba ba ci fukk fan ak juróom ya képp ku ñëw ci kër gi yëg ne yaa ngi ci kër sëñ Juba nga wax ne da bëgg ñu saxal fi jàng alxuraan tamit na boobu it amu fi woon boobee ñu daal ci ñu daal ñu daal ñu daal ci suubu te am ca am ca tawféex ndax tawféex ji mooy ni ko sëñ Mbàkke leeral léegi rek bañ xalaatee bañ xalaatee ba ba juboo ci bis bu sakk bis bu set danañ fi mën a jàng juróomi kaamil ba ba fukk fan ak juróomi matt booba bañ koy xalaat sax xamuñu woon lim lim bi lu muy dëppal waaye mel na ne ci tawféex sëriñ bi dëppoo na ak dundu sëriñ bi kon loolu nag ko te lépp nag sag bëgg la dem na ba. mbaarum son asgaaw mais ñu ko jàngee nga xam ne mbaarum son asgaaw lañ ko xamoon léegi boo duggee ci kër gi boo laajtee daari kamil foofu la ñuy yóbbu te loolu nag day mel ne ci sa ci sa ci sa bëgg la sa ndigal ci say ndigal la say xalaat la mel ne kon daari kamil sax na ci kër gi te ku ne xam ne sëñ Tuubaa ak alxuraan lépp mu alxuraan la kon nag Mbàkke ñu ngi lay seeral ne mbooloo mi la nga sàkkoon ci ñoom te diggal leen ko lépp def nañ ko lépp loo xam ne manqué na ci rek xëy na man mi dox si sa diggante ñoom ci la manqué waaye lépp matal nañ ko daanaka li ma ci waroon leer lépp suñ mbàkkee daf koo leer waaye ñoom ñu am pas-pas lañ ñoom pas-pas lañ xam naa ne mun maa wax ne am nañ seen seen pas-pas yi maam yi waaye am nañ yéen a ji am nañ dogg ko te te doxin wi wane na ko doo gis kenn ci ñoom ci ci liggéey bi wala ci kër gi ba nga ba nga xamee ne moom kii kat sëtub diw la nit na ko suñu mbàkkee waxee léegi it mbooleem waxtaan yi nga xam ne ñu ngi ko fi defit ñoom ñooy ñoo koy defaat te doo ci daje kenn ci ñoom boo xam ne kii jàng na dara jàng na dara sax waaw kon nag mbàkke ñu gàttal foofu rek di la sant di la gërëm di ñaan sëñ Tuubaa guddal soo fan te wéral la di liggéey bi nga xam ne sëñ bi teg teg na ko sa loxo ñu ànd koo yow lu yàgg-yàgg ñu de xam nañ sa bëgg sëñ Tuubaa xam nañ sa cofeel sëñ Tuubaa te mën nañ koo seer wér wér kon nag wóor nañu ne liggéey sëñ Tuubaa bi nga jiite ndam rek nga ci am ndam rek nga ci am ndam rek nga ci nga ci am ihmalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu ku nodd gaynde not sa gag ma far dàq ñëw mu daw du soowee ko béy nappal di yàlla gis na la mbàkke ndam na nga ci am jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen sant di leen gërëm di teg nuyoo bi nag ci loxol Serigne Abou Mbacke mu Serigne Cheikh Ahmadou mu Serigne Souhaïbou ba mu jàll ci mboolem euh, sëti Cheikh si nga xam ñoo fi nekk. yéen ñi nga xam ne seen maaw yooyu ñoo njëkk a topp sëriñ bi ànd ak moom ci liggéey bi dégmal suñu borom bali leen ci fekk fekk leen ci ñu ngi leen di sant yi ñëpp ngeen xam ne dolliwaat ngeen suñ pëseef bu baax a baax ndax li ma ci gën a yéem mooy ba ngeen tàmbalee liggéey ba na gëne amu ci kenn koo xam dana ñëw nuyu si ma ku xëy rek maa ngi ci ndigal la loolu na kon wane na ne xam ngeen ne jëfal leen ma suñ tubaa ngeen di jëfal bettuma ci yéen ndax yoon wi moom dama lay wax ne dama leen di wax ne saa soo ci gisal la naqari rek du ci ñi nga xam ne seem naa ñoo toppoon sëriñ bi dafa yaatu nag ndax lii ñëpp lépp dafa ñëw léegi waaye yéen ñii moom kenn du ci gis lu ko ndax sañu leen ko bañ dafa ne seen biir dara di te seen maam yi kat duñu ay jaahil lii si ñëboo seere léegi ak suñ bàkke wax ne koo ci seen mooy dem ci waañ te bu waxtaan wi accès moo ci man seen maam yi noonu lañ meloon moo tax waxtu ne dama naan leen nañuy gën a feeñal mag ñi toppoon Sëñ Tuubaa ndax wane leen mooy wane sëñ bi ci ñoom lañ mën a xamee Sëñ Tuubaa kon nag maa ngi leen santaat bu baax di leen gërëm tey gën a dolliwaat dalum xel nag ak yaakaar seen yitte ak seen positif ak seen taxawaay ci dogg gi ngeen am ci liggéey Sëñ Tuubaa tàndu boo ñu ngi di sant leen sant ñëpp béyuma kenn cant goo xam ne ci suñu xol lañ ko gën a dolli suñu yaakaar bu baax a baax tey ñaanit nag ci barke suñu Tuubaa ndax bu ngeen fi yëkkatiwu defutoon jënd jëf te saa su ngeen xëyee wàcc fi juróomi kaamil nag ko sëñ bi digle woon ci njaareem gëm naa laq ngeen ci ngërëm suñu Tuubaa kon nag ñu ngi ñaan ñu ñëpp wallazina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim zurriyatahum yàlla nañu suñu borom boole sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen kenn ko ci ne la maamam liggéeyloo sëñ Tuubaa ba mu gërëm ko ngërëm loolee yàlla sarceew baag yi sax njaboot ak say sët teñ teewaat fi gën déwér jàmm te luñ ci def ren rek bu déwénee ji defaat ci lu këpp te Sëñ Tuubaa gën ko ndongo te dara bañ cee dugg loolu ngërëmu Sëñ Tuubaa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala fi kulli shahrin wa fi safar hamani ala maahin mahal habsa wa falaahi bi kawni abd rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada mugnin anin nafar raditu anil mawla wa an xayri xalqihi